lu jëm nag ci wàllu gàmmu ren bi man dama am mbégte ndaxte dama ci sant yàlla bu baax bu mu defalee loolu ndaxte ren ci investissement yi def nañ ci lu war tolloo cent millions cent millions yooyu xëcc nañ presque huit kilomètres yoo xam ne tas nañ ko pour nit ñi gën a mën jot si courant def nañ ci tamit benn poste courant boo xam ne désormais ak fu nit mun di ak bu ñu ñëwee Dakar bu ñuy xool suñu réseau li ma ci gën a neex mooy dinañ mën a gis poste ba courant bi nga xam ne sëriñ mënulu njëgël lañ koy wax kon loolu suñu yàlla dimbalee loolu ba loolu am si ñun mm-hmm. nga xam ne fi ak ay at di demati nañ wax toujours fii mooy poste Serigne Mounirou Ndiéguène kon loolu dañ si sant yàlla di wax ne si wàllu lanterne yi aussi lu comité d'organisation bi laajte woon yëpp jox nañ leen et que léegi parce que gàmmu bu leeree am sonorisation am courant bu doy mun nañu wax ne gàmmu bu li ci des bëreetul en tout ngi taxawaat fii di tàllal suñuy loxo nga ñaanal ñu ndaxte Senelec yëfu Sénégal yàlla dimbale nañu defal ñu sutura buñ fi ñëw daaw waxoon nañ la Senelec fu mu tolloon waaye mun nañ la biral ni sëriñ bi Senelec yokk na buñ fi jógee daaw ren contrainte yi ñu doon am ci exploitation bi lu bari lépp wàññeeku na te tey jii mun nañ wax ne benn problème rek lañu sénégalais yi di wax mooy électricité bi dafa cher te loolu yi nangu nañ ko ndaxte damay wax rek ne kuy jënd di jaay tànk li ngay jënd wàññeekuwul li ngay jaayee du mun a wàññeek soo buggee continuer di jaay wala su nit ñi buggee di jënd li ngay jaay léegi am nañ courant bu doy waaye li koy dawal muy fuel boobu noonu nga xam ne ñu ngi koy jëndee bitim réew boobu moo yeggagul niveau boo xam ne dinañ mën a wàññi courant moo tax si suñu planification ñu gis ne bés bu ñu yàlla dimbalee ba gaz ak pétrole boobu ñuy wax ñëw senegal loolu dinañu permettre ñu mun a wàññi courant bi ba fu population yi di xaar ñu mun fa yegg ak surtout fi nga xam ne loolu la ñu président wax comme lu mu bëgg comme objectif si wàllu courant bi ñu mun ko yegg boo xoolee léegi amatul coupure courant yu bëri te loolu rek daan na indi ay tension sociale yoo xam ne daan na métti poser problème de sécurité publique loolu amatul te entreprise bi mu ngi def résultat ba lenn ci résultat bi état bi mu ngi koy récupérer kon foofu ñu ngi sant yàlla bu baax di leen sant di leen gërëm si ñaan yi ngeen xam ne moom ngeen ñu ñaanal ba yàlla dimbale ñu ñu mun a yegg foofu yow nag la yàlla ko yàlla yokk rek muy mu ne ñun nag li ñu lay ñaanal saa bu ne mooy yàlla mu yore teraanga yàlla na la yàlla yokk ba nga yëg ni yokk na la incha allah yëpp sawar mu ne rakkam yi yëpp boo fiy ñëw dañuy sawar a ñëw bokk ak yow teew ndax ñun suñu taalibe yi nekk ci àll bi ci village yi ci dëkk dëkkaan yi yëpp jàppale nga sëriñ bi ba mu mën leen a jàppale ba tey bu ñu demee ci seen dëkk yi bu ñu fay gàmm wala ñu fay conférence groupe amatu fa dara amatu fa dañuy taal courant Senelec te yaa ci jàppale sëriñ bi mu jàppale leen ci ba ñu mën loolu kon sëriñ bi nee na njaboot gii nga xam ne ñoom la bokkal xadara bi yëpp ñoo ngi ànd di la dalal di la ñaanal yàlla. yàlla fi jàmm bi am. mu ne Senelec yàlla na fa yàlla dolli jàmm. mu ne Senelec yàlla na fa yàlla dolli wërsëg wu rëy rëy. avancé ñun na ko yàlla saxal. mu ne avancement bi ñun yëg nañ yàlla na yàlla saxal njaboot bi di ñëw ci yéen wax nañ ma ko ñoom ñëpp ñoo dem di ñëw man demuma waaye nag yaa ngi toog say kilifa say njaboot ak lay raadu man demuma dikkuma waaye njaboot gii dem di dikk. jàngat la ci ne du fépp ngay dem léeg-léeg nga yebale waaye suñu ñëwee wax la la fa xew yépp mu ne njaboot gi tam noonu la ñuy doxee ak moom moo tax mu xam ci lii yépp